laa ku fa dem wala Adama na yegg na gioco Bate normal, olha Pak. ada mau orang tuh. Attention! Ah. eh. ah waxuloon da nga naroon wax. Ngalla jël ko. a voilà waaw ah boole ko ak waaw. na jëm ci kaw. Adama ci kaw. ci Тёрь, тёрь. Маве куй переснёва. Да. Yani bir tane böyle nasıl? fala. Nice. Quatro. cinco Seis. Sete. Vinte. Nove. Dez. Onze. Doze. jërë ngeen jëf salaamaaleykum amee internet jël bi amaan mbégte ak contentement bu baax a baax a baax jàkkaarloo waat ak yéen nuyu nañ kilifa di nuyu kilifa aada nuy njabootu làmb yëpp di leen dem ba ci hôpital di wax ñu fa tëdd yàlla yàlla fëgg seen bopp waaye nee naa duñ tam ñoo xam ñi nga xamante ne nekk ci prison yi di leen ñaanal yàlla na leen fa yàlla génnee di leen fi dugaloon ñu bañ cee delluwaat waaye tam ñu ngi ñaanal bu baax a baax a baax tam ñi nga xam ñoo génn àddina di leen wax yàlla na leen yàlla yërëm taxare leen àjjana ñu jëm nag ci bis bu rëy muy le 15 mars bisu su production nee naa la combat bi yàgg na ba fi mu nekk ni mbëri sax bëri nañ ko seen biir ba pare da jël bi rek moo des waaye nag grand combat bi war a dox ci diggante ki nga xamante ne mooy bébé ak Lasta Ndeer Lasta Ndeer nag jëloon fi ci diggante bi avance bébé diiwaan nar a xaaddi ko bébé diiwaan bul xaaddi dañ koy jox mu nuyoo su nuyoo pare ñu tàmbali li nga xamante ne mooy waxtaan bébé nuyu naa oui maa lay fay matu bu mu jullee si yoonte bi sama ñaar waajur di sant wa géejawaay bu baax a baax baax di sant wa yëmbal di sant wa benn barak caaro mo mu nga bàyyi ma kenn di sant ñëpp daal bépp do aadama ba xam mi ñuy seetaan di la jox sunu waaj waaye di la nuyu di la jox cer di la ñaanal yàlla na defal jam di ñaanal ñëpp yàlla na defal jàmm waaw matu mooy comme li nga wax rek lamb ji yàgg na metti na trop dem na ba desetuñ dara yàlla xam na loolu presque un an ngi ne dañ ko entraîné parce que combat mars la mars loon parce que la 20 mars laa mujjee bëre le 23 la combat bi taxaw waaw kon métti woon na si man métti wona na si man trop waaw mais xëy na externe si cappaandaw yàlla na ko yàlla yeggale jàmm salaam sotti ko yàlla may ngeen ndam incha mais wàccaay gi Bébé Diwane fi ne nii foo toll ndax fekk naa la ngay entraîné dafa mel ni nga de. wàccaay moom lenn la rek mooy ànd suñu mbokk booba tey baaw boo xoolee coach Mao trop chaque jour di di xaar ay chaque jour chaque jour Salba tamit bàyyiwuma ndax Assane Ron duwe ci man ak Ousse Noreyni chaque jour ñu tek ma lu métti presque un an ni dama ko entraîner un an dama ko entraîner tok de xaar xëy lamb ñu moo ma ko jaral quoi parce que buma ma amna am na fu ma yóbbu su fekkoon buma ko daanee do am fu ma yóbbu kon duma ci sonu quoi wala damay delu wat avance mais suma ko daan amna na fu ma yóbbu waaw daan la seneer am na fu ma yóbbu daan ko amna na fu ma yóbbu parce que mbeur la def na fi lu ne ñun ba ñun ba ñuy deug la sandeer boobu demaguñ fenn ñing tok di xaar mu koy dégg ñun pour ñun doom Mor Faram la ndax saa yu daan daan ma ngi sant Mor Faram man sax pour man ci école bi fi la nekkon waaw kon la sandeer mbeur mu yàgg la quoi aussi di ko nuyu moom di ko jox ba ci am di ko ñaanal yàlla na ko defal jamm ak salaam bu jour lamb ja mais kérok ma dem ñàkku rap gis ko bébé diwaan la sandeer mi ngi ci état de parce que nee ma combat bi fa nga ko cuq non rek manako mbeur yaang ci état de nee combat bi da ko ñor parce que lu taxoon mu jël ki nga xamante ne mooy béykat nee na combat bi dafay yàggoon loolu mu dem ba jeexal jeexal xaalis léegi il fallait que mu jël avance mën laa préparer yow parce que dafa laa préparer dara nee na. waaw loolu moom <laughs> loolu moom la parce que mooy li ma la wax rek la sandeer moom tolloon ni bari maa aussi dañuy bëri moom parce que man samay combat ku ko xool dëgg-dëgg wala ku ko xam dëgg-dëgg xam ne man damay xeex damay bëri danaan la sandeer mën naa bëri waxtu man mën naa bëri ñeenti waxtu man damay xeex damay bëri sama combat na ko yàgg parce que xam naa li may bëri tamit lasandeer ne ko mbër mu ni saax-saaxee nii moom lu mu teg moom ñu bëri moom mooy mu wax làmb ji metti woon na yàgg na bañ na ko ba sax sam papa maa ngi koy nuyu euh, passage moo xaritam yi nekk Italie dana ma combat métti na yàgg na mais dina la dajal valeur valeur cinq mille jox la ko nga préparé ko combat bi xëy na loolu dafa neex sam doomam du bëre ñoom tam ñu ñëw soutenir ko comme su doom day bëre mën nañ koy jàppale may ko cinq cent mille préparé si combat am loolu maa ngi leen sant bu baax a baax di leen wan gis naa ko sant naa leen gërëm naa leen bu baax a baax waaw. kon combat bi mën nañ ci xaar samp jaaga ndax gis nañ sa combat bi passé nii gars yi ñëpp bu ñu ñu ne bébé diwaan du xeex bébé diwaan combat am dafa nangoo yàgg day ñëw rek taxaw kon combat bi nii yàgg la sa ndeer mën nañ ci xaar samp jaaga xeex. non moom kay mënut a ñàkk moom man mos ma gis sama combat mosuma xeex damay ñëw taxaw xeex moom damay xeex damay bëre duma la may dara parce que man damay bañ ko ma yab bëgguma ko ma ŋaañu sa dara moo may bëre damay jël sama temps bëre non mu yab ma lasandeer dama yab la ma ne mom live la live dëgg ko limu la la lasandeer ma mom live la waaw live la dama ko xam rek non dama xam ni may xalé quoi maay xale lépp waaw tay jii lepp lu wara a neexal laam ji lepp lu koy def rek lépp lu koy animé ak lu koy neexal ci man la wara a may tous neex mu neex may bëre mu neex may daan ñepp contane inshallah bu neexee yalla ñëw Mbaye Tine. fay naa la. maa ngi sant bu baax kay. waaw ñoo ngi ci préparation bu baax moom. ii tuuti ñu yalwaane kay. waaw lu leer laa lay wax. man kay maa naroon jël pot yi moom dugub biir marché njaaram ak sans fil yëmbal. naa leen lu waay mën ci combat diwaan bi. waaw mais yàlla dogal na comme confirmé na rek. yàlla nañ ci yàlla yóbbu ci jàmm ñu am ci ndam ci jàmm. waaw daa mel ne comme ni ngay nelawee noonu ngay yeewoo rek combat bi noonu la rek waaw sant yàlla rek yàlla nañ ko fekk jàmm rek te nga xamante ne moom dañuy ñëw rek fekk gan gi moom dina bëree 4000 milan te du jeexal da naan fa yàgg rek boobu moom nag yàlla yem fi le moom day ñëw rek ñu ne ko tëral ñu si ñëw dañuy xoole leen lu ma koy conseillé daal mooy fi ko gars yi di xaar moom na ko ñëw romb na ñëw dëggal boppam def lu war parce que diwaan boo seetaanee ay premier combat day ñëw assumer responsabilité am dóor fokk mu dem waaw instant bi xam rek day làmb day nii lay def waaw bii moom dina wutee yeneen yi moom bii kuuru Baye Fall laa yor bu naree samp mindi mën na ko tey nga de 15 yow yow le 8 bi xamaa naa mu ngi si am waaw yow ñun journée góor ñi la ñuy xaar le 15 daal nañ yàlla defal jàmm rek école yi Mor Fadam moom ñu ngi pare parce que du du diwaan rek la ñuy préparé ñeneen a ngi nii ñoom ëmma seen ñëpp a ngi nii préparé kon day tàng cër waaw day mel na nguur xaw ma mu jaayee mbàmb te nopp yi di dem. di la féliciter waaw gis nga gan mënul was moom lu bari parce que diwaan champion boo xam ne nu mag si làmb mais jox nañ cër boo xam ne ñun mooy loolu. mais jàmbaar lay dajal de. non champion la. béy diwaan ndaanaan làmb la. c'est yi xamagul ko nag si làmb. mais di ko ñaanal yàlla yàlla defal ko jàmm may ko ndam may tamit comme ñeneen ñi si école bi ñëpp ñoom ndam parce que soxla nañ ko trop. parce que si école Mafaram dafa war a jug si kaw. école Mafaram dafa war a jug si kaw. dafa mel ni si si promoteur yi comme leen xaw fàtte si làmb. Mbaye Tine si mokkan la gëj a bëre na lu yàgg si bëriwul dafa war a bëre sa param si ñoon mu ngi dafa war a bëre sa njambaan sa ñeneen ak ñeneen pour ñoo si école bi gars yi ñëw war a ñëw may doole si école bi pour pour gars yi mën a comme jiwaat si kaw mais aw ah, non <laughs> <laughs> ah, la ayca jaajëf waaw fay naa la wala wala 15 ñaan ma ñu ndam rek ayca ñëwaat ci mbër bi non mooy am mun da ñàkk ya non leneen bare am nga Lasandeer moom tamit moom Lasandeer lan nga koy wax daa gaaw jooy quoi Lasandeer ah combat bi nee du ci jooy de ah yow mi indi musuwaar yu bari de nee na du ci jooy yow mi indi ay musuwaar yu bari de nee na fu at at bi sifflé dina la fekk bon yow mo nak am de am de am de jaam nak am de yow mi daal musuwaar yu bari wala mel ni sarbet bu jooyee rek mu foom bu jooyee rek mu foom combat bi mënta yomb parce que combat bi ñi ma si jàppale ñoo bari ñi ma si jàppale ñoo bari comme léegi kii di waxee ñun nekkul ñu kese ñu am combat ci école bi kii day bëree ñangu euh, ñang baala ak beneen booy bi ak maamaya dindi bëri la wit yàlla na yàlla may ndam moor tamit euh, kii saako joor 2 sunu journée bi da ciy bëri mooy bëri spécial bi di ko ñaanal yàlla na ko yàlla may ndam xam nga di bàyyi daam tamit dafa sonn quoi dafa sonn ci ñun parce que chaque jour papa saako joor chaque jour moo fi jiit yow gis nga ko ñu teel suñu yére yi moo ñu teel waaw moom mooy papa saako joor mi ngi ne le ñu teel suñu yére yi moo ñu teel suñu dàll moo ñu defal lépp kon yalla ko yalla ko doomam bi bok ñew di dugg dugg islam yalla nako fay yalla nako yalla nako yalla nako yalla jappale quoi parce que dafa yag ci lamb dal mom moy papa Sakho mo nek non mo solo maron li ama man bi ba sama ko mbaba dama beureu beug ci suba gi rek Sakho ma di may félicité ama mom tam doomam bi di dugg ci lamb gi ni yalla nako yalla jappale quoi yalla nako yalla jappale yalla nako yalla defal li mu bëgg waaw di ko ñaanal tam wa di sama wa koñ tam di len woowaat bu baax a baax waa yëmbal ñom la am man aw luddul yembal man doomu teekaa la man doomu teekaa la di len wo di wo amu dot Omar Ya Sow bara gay euh euh di wo Prési waaw di wo mod mod Mbend ka woo bax a sama copain Amit Diop di len wo ñum ñep bayuma ken dal way yembali bayuma ken di wo ñep combat bi dafa metti dafa laaj jappalé jàppale. Badiane aussi tamit di nga ñaanal rek lim bëgg momit yalla nako yalla defal ah. parce que momit xalé la quoi di dogu dugu dugg si làmb métti na nak metti na trop man damay dem les gens damay bëgg xadi mais dama koy comprendre quoi parce que xamni day dogu a dugg si donc man aussi bu fekkee lamb man ma nga xaw a ci lamb mu naam lima am ci lima xam ci lamb mom xamuko ci mo ram moo ko doon may ben battement rek mais comme yalla agsi nañu fi dañ si bëre jamm genn ci waaw yalla comme ci ku si yàlla jàppale daal ma la mom yalla nako yalla may wërgu yaram gudd fan yalla ma yalla may ndam waaw di ñaanal parrain bi tam jamm di ñaanal tamit mom tamit na jàppale ñaari mbeuri yi grand combat quoi parce que grand combat daf met lu mën ci jàppale leen mu jàppale leen quoi waaw parce que mon aw mo ñu dul ñom waaw. naan maa ngi woo waa yëmbal yëpp bàyyi ma kenn la li limu wax moy jaru muy nek fi di sono bopum na taxaw rek xaram mu taxaw rek xaram na taxaw xaram jaru muy sono bopum eh. na tok xaram mu tok rek xaram mu tok xaram do du xaram xaaral mu bëre. non du bëre. ar bi day sifflé muy calli calli di daw di dem fële di daw di dem fële. Ah. loolu yëpp mën naa ñàkk na taxaw xaar ma rek. Eh. fu mu mënti kii bi ñu ne ma koy ma koy def. mafia ki may saf moom mooy jox box bi moo ñuy ñamal kuur yeeg yooyu noonu oh moo jox Cheikh Kayma ku Iberkil bi. waaw mafia bi si ginnaaw mooy axlu fëb. waaw ñoom ñu ngi jóge ba yëmbal. ñoom dañu war répété nii quoi ah. parce que open press bi le 10 la. di woo waa yëmbal gi yëpp bàyyiwuma kenn. man wa yombal lam man doomu geej wala ak yëmbal sama yaay geej wala dekk sama papa yombal la dëkk man ñom la am di wota man wa igri yombal mbolo gi bayiwuma kenn di ñaanal bebe salum lambam jëm mu jëf si 12 yàlla na si yàlla may ndam parce que ñun moy suñu idol man sama idol préféré Marle 2 la di ñaanal Marle 2 yàlla na ko yàlla defal jàmm koku moy sama idol moy sama lepp pap Thiam tamit yàlla na ko yàlla defal jàmm waaw Bamba kan caaru Papa kan warona beure le 18 mais dafa def dafa def ki euh, sokko ba loxo bi dam caatu Papa Kane di ko ñaanal moom it yàlla na ko yàlla may wér tamit li mu bëgg tamit ci euh, carrière am yàlla na ko yàlla defal métti na trop quoi mais na fa kii rek yàlla baax na waaw di sant ñëpp di woo di woowaat waa Yëmbal di woowaat suñu zone bi zone 1 département Kër Massar waaw Cheikh Sène mooy président euh, zone bi di ko ñaanal jàmm tamit di ko wax ko liñ la liñ la sas diis na mais yàlla baax na góorgóorul di woo tam waa IFI IFI bu Yëmbal. waaw di leen woo ñoom tam bu baax baax di nuyu seen président maam Dieng Libaas moom daf may jox ay moyens am di ma defal ay moyens di ma defal ay loisir lépp lu ma bëgg rek daf ma koy defal aussi di waa Confébat di leen bu baax a baax ak Raxam Cheikh Xës moom war a defaral euh, maillot bi ma war a demee si open press ensemble moom moo ko war a defar moo di ko woo moom itam bu baax a baax di sant gaa yëpp waaw loolu am na ma doon ay ci sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp di leen jox rendez-vous rek le mars incha allah ak bisu Badiane production nee na leen ñëw leen ngeen jàppale ko bu baax a